del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer parce que sëy mettiwul nit ñi ñoo ko metti rek parce que ki nga xamante ni nii euh, moo ëmb sa jëkkër juróom-ñeenti weer boot ñetti at lépp li ñetti at boole nax ak neexal te kenn fekk ko ci doomam su màggee ba doomam mat a jër jabar bu jabar ja dikkee di ko di di ko def leneen xolam du neex mais jabar ju yarul ak laam jabar ju déggal goroom jabar ju déggal njëkkeem yi mu fi fekk ci kër gi muy fi fi laa parce que njëkke mooy njëkkee njëkke ak ak ak goro dañoo bokk ci sëy dañuy neexal sëy dañuy dañuy neexal sëy bu jeeg bu fexe ba am sa njëkke am sa goro am am nga lépp parce que sa goro moo jur sa jëkkër munoo fexe fexe fexe fexe ba am ki ko ëpp ndax moo la jural ki nga xamante ni moo la tax a bàyyi sa kër yaay bàyyi la sa kër papa ñëw ñu fekk si ko goro bi it ki bëgg sa doom yow la bëgg téewal ku bëgg sa doom yow la bëgg ku bàyyi kër yépp ñëw choisir sa doom toog li mu am ak li mu ñàkk kenn xamagu ko du la nduggee marché du la sàmbi jaay wax dëgg yàlla kooku téel mais yow miy xale tamit booy téye na nga na nga na nga na nga neex a na nga nekk xale bu neex a xale bu neex a boot ndax sëy jafewul nit ñi ñoo ko compliqué léegi rek mais suñu yaay yi dañ daan sëy ci këru famille ba ñun ñëpp ñu judd ci yarondoog suñu doomu bàyyi xàmmee màgge xam te lii lépp du ci am mais ñun ñoo ñun ñoo tàmm beru bëgg indi beneen dund boo xamante ne nii moom moo tax sëy boo fi gis ñaari weer ñetti weer ñun la tas na mais sëy dangay nangu uuf dangay jekki sàmmin fexe ba njur gi suur te duñu róoroo te doo ay tool jeeg buy sëy na ko xale yi ñeme ci kër gi na say rakku jëkkër di yàpp sa néeg bu ñu bëggee parfum ñëw ci yow suñu bëggee seen yére frère ñëw ci yow bu ñu say jigéenu jëkkër bu ñu bëggee xaalis ci sa jëkkër sax ci yow la ñu jaar loolu mooy jeeg bu baax mais boo dee sëy toi et moi bëgg a beroog sa jëkkër dong ci ji koo xamante ni dafa sonn ci sëy yar yar yar ay doomam ñu juddoo fa ñu war a juddoo mu yar leen fa fam leen war a yaree boo dikkee fekk kook ay doomam fekk këram bu ko tas uuful ci moom mu uuf la nga doon doom mu doon sa ndey sëy jafewul ñun ñoo ko compliqué rek ñun suñu génération bu mujj bi ñoo ko compliqué rek mais sëy jafewul de jafewul te mettiwul yaatul baaxal mën a la joxe lekk yaatul ci ñëpp nangoo togg mu neex di togg ci mën di yekk ci bool di ko séddale ci ay palaat daw. ok nga nekk référence ci milieu bi ngay yëngu muy aar bi parce que Bella kenn mosu ko dégg ci lu ñàkk fula wala lu ñàkk fayda mosoo toog rek ñu bindal ci réseaux sociaux yu euh, ne Bella def na lii wala deful lii kon donc en tant que porteur de voie nga nekk référence lan mooy sa secret ak lan ngay ñaax ñi nga xamante ne dañu nekk ci aar bi ba pare di ko salteel parce que aussi tamit euh, dañuy nekk concurrence ci aar mënul ñàkk mais aussi tamit nañ ko rafetal nañ ko naayisal yàqante bi dafa bari lool te Bella gisuñu ko ci yoon noonu secret lan la ak lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy def lu ni mel. waaw man benn mooy artiste bu ragal réseaux sociaux laa artiste bu ragal buzz bu bari laa yàlla moo ma ko bindee yàlla naka ma nattoo aar ma juddu ci famille artiste mais ñàkk bon gi du ngóor a jigéen du tëddee raw damay ñaan yàlla rek fi ma téye ba heure bii yàlla buñ ma ci dégg ci lu may xeebe ci luñ may xeebe wala luñ naan cim. parce que dama bokk ci famille géwël bu mag géwël pire laa dama bokk ci famille géwël bu mag am na yoo xam ni sa deret da koy jomm te li nga jomm ak li nga rus ak li ngay ragal ñooy li nga jomm ak li nga rus ak li ngay ragal ñooy am may ñaan dungóor a parce que wax day bal te mën nga fay wax dara suba leneen xew adduna il faut jamais dire jamais lii du am mais bayal sa waar ba bu amee ñu ne ah bett na ma moom de xalaatuma ko woon foofu xam nga lan moo bon dara am ñëpp ni bettu ma woon mais dara am ñu ne ah man de xalaatuma ko woon foofu parce que nit ñiy juum nii ñii juum ñu leen di dégg ci leneen nit mën naa juum moment bu nekk parce que àdduna la jarul fëgg sa dënn naan man du ma def lii man menu ma nii man menu ma nii ku baax xam nga ku bon xam nga àdduna ku wéet xam sa bopp gis nga yow boo wéetee di xam li ngay def di nga xam yow yaay kan di nga xam ni baax nga wala nga ne bon nga ku di nga xam sa bopp kon jarul fëgg dënn ay man maa baax ay man maa man maa def lii man maa def lii damay ñaan na ma ñëpp ñaanal ba bu ma kenn gis ci loo may xeebe bu ma kenn gis ci loo naan cim parce que dama dama dama dama nekk jigéen nekk ci aar ñu am métier moo xamante ni nii ay góor la ñuy àndal di ko def mën nañoo jug heure bu nekk ma am kilifa boo xam ni dama dama xàmmi fekk ko mu nekk ci li ma nekk te kenn mësu koo dégg ci dara wax naa la sànq ni la kii toog sama mag la ñoo bokk ndey kenn mësu koo dégg ci dara kon man bu ma dikkee damaa war a jaar ci yoon boobu ñu jaar daam seen ci kër gi la dëkk sama mag la te sama nawle la te bëgguma mu génn suba ñu wax loo xamante ni dina ko métti ndax mbokk nday koy jutta ñoo bokk nday ñun ñëpp ñoo bokk nday moo tax dangay daw loo mën moytu loo mën di xam ni jigéen du tëddee raw du sa ngóora waaye ngay ñaan yàlla yàlla bu la génn dégg ci dara lu ñu lay xeebee di ko ñaan yàlla di ñaan ñu la koy ñaanal ñi la sopp te bëgg la parce kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ te ñun kenn bañu ñun ñu baax ñëpp ñu bëgg te bu ñuy wax Sénégal ñu baax ñi ñoo tax te ñun ñu baax ñi ñëpp ñoom ñoo ñu bëgg man gëwuma ni comme nit ñi damay def lu baax pour samay noon sa noon jarul def lu baax parce que sa noon noon la olof dafay juum sa noon sa noon la defoo ko saf defoo lu ko neex loo loo def rek moom moom fi mu la considéré la la considéré pare parce que sa noon la mais dangay def lu baax ngir ñi la sopp ñi nga xam ne bu ñu déggee ci yow dara am lu leen naqari ñi lay xulool te xamoo leen di la xeexal te xamoo leen ñu ñoo jara def lu baax nga def lu baax redoubler d'effort loo mën a def nga def ko pour ñooñu mais noon bi moom bu dee am na it jaru def lu baax ndax noon bi sa noon la ba pare lu boo ko baaxalee boo ko bonalee lépp noon na place noonu la taxawe xoolu ci yow lu baax xoolu ci yow lu gën xoolu ci yow lu la nit ñi di nawe moom noonu na rek lu bon la lay yéene jarul def lu baax. mais lu yàqante bi nekk ci milieu art bi parce que li ñu naan rek séntu asamaan jarta buuxante fu ndax fu waay tollu di nga gis yàqante bi nekk ci milieu art bi naka nga ko gisee. waa yàqante bi nit moo gàtt xel rek parce que yàq sa nawle amul sens man su ma gisoon loo xam ne su ma ko defee ñu xeeb mboose mii waa su ma ko defee pare lan la may apporter dara apporter lu ma dara parce que yàq naa ko ay nawleem xeeb dañ ko ay mbokkam xeeb nañ ko. ndayam wéet na jooy ndax xolam jeex parce que doom xolu xolu doom ak nday dafa daf dafa jege des fois bu ñu yàqee sa doom lu ci sa doom di yëg rek di nga yëg lu ni tool waaye léegi yow mi ko def lan la la jariñ danga nga cee am kër wala danga nga cee am oto wala da nga cee am dara gis nga nit day yéene nawleem yu baax gis nga àdduna boo yéene ñëpp jàmm rek dangay am jàmm mais boo dee yéene nit lu bon ci lu bon rek ngay dëkk yéene ñëpp jàmm parce que dee gi gaaw na te loo bañ dee fekk la ca mën nga koo bàyyi àdduna bi jeex na ba pare dara jaru fi lenn. gis nga lu ñaaw lekk waxante wu ñaaw yeeg génne vidéo beeg xasante beeg tiktok beeg yooyu yëpp dañ ko fi bàyyi te dañuy dee. dañuy dee te ku dee sa bam sa sa sa loxo ndejoor rek ngay jege noo te loo def rek moo la fay fekk nag kon jarul dara man damay ay xool nan la nit mën a xoole nawlem di ko yéene lu bon di ko yéene mu torox. wala ñu xeeb ko wala ay mbokkam xeeb ko wala wala wala wala wala wala du mën a génn wala man man yooyu su ma ko gisee daf may jaaxal parce que man damaa yéenewul kenn lu bon man ni ma toll laa toll ni ma mel laa mel lenn da lañ ma mën a waxal làmmiñ ñu rëy te làmmiñ ñu rëy ci liggéey bi la yam su jeexee jeex na mais ki nga yéene lu bon xamoo lu ko ndeyam boote de te nañu def nag attention parce que gis nga doom ju am ñaanu waajur nit da koy moytu bu nit di wuti sëriñ nit di wuti ñaan di sangu di yëg ci ayu karam di takk di sangu di naan yow fexeel ba am ñaan waajur sa xol loo dëkk lu la sa fit may ci lu baax bu la ko sa xel xaj comme li ma sama yaay di wax loo dëkk ci lu baax boo ko ñemee demal doom ju am ñaan waajur na ko ñëpp mooy du ñëpp rek la ñuy faagaagal rek ñu tombee yàqante bi jaru ko ma koy wax sama nawle yi nga xamante ne nii ñoo bokk métier mi di liggéey te bokk liggéey bi dara jaru fi dara waa nit boo ko yàqee tey génne vidéo am suba nga yow ñun ñun la dee na nag nit loo ko bañ bañ yéene woo ko dee ngay suppa jëli ñaka toog di réccu nit buy def dafay xalaat ba pare adduna booy def dangay xalaat ba pare lu dul lu rafet lu rafet a ko gën lu dul baax baax ko gën lu dul jàmm jàmm ko gën maa la wax nii. ok balaa ngay tàggatoo nag fag ma laaj la ci sa doomu ndey seen diyo bi naka lay demee yow ak sa mag ki nga xamante ne moom moo di fàddaam boo leen di diyo ni affaire bi naka la leen di dikkee yéen ñaar. xam nga ndaama dañoo yàgg a ànd. man yaa faatu ndey siini faat daam Pape Fall ay ñambe Serigne Ngagne ànd nañu vingt ans ànd nañu vingt ans dafay ñëw nag naturellement naturellement rek lay ñëw complicité bu nekk suñu biir la ñu yàgg a ànd yàgg a joué yàgg am am benn complicité boo xamante man déjà dem nañ ba ku ma contacté ci dara sax da ngay woo Ndaama ku woo Ndaama da nga may woo. parce que récemment gis nañ ngeen saison 2 Pod et Marichou final bi yéen yéen a jéewoon rôle Kiné ak ki nga xamante ne moom moo di Dieyna. waaw Kiné ak Dieyna bi mbetteel di di daw te ñu defoon suñu séquence boobu man day Ndiaye ak Lena ak fardaam après bi ñu xëyee euh, Sidi ñoo ko reprendre ni Bella Nafisatu ak Ndaama am nañu relève muy Kiné ak Dieyna. xam naa looloo tax ñu contacter ñu bi ñu demee tamit ñu fekk fa nit ñu baax vraiment waa Marodi ñoom Mansour ay nit yu baax lañu. nit ñu baax lañu parce que Mansour sax dama koy gërëm de passage parce nit ku ñëw di tourner nga fay ko xaalisam ba mu mat mais teewul moo doon tal otoom di ñu jëli di ñu yóbbu. du bëgg ñu def dara wax dëgg yàlla parce que loolu nit ku la ko defal ci première fois bi nga xamante ni ci ngeen door a liggéey. ñu defal la loolu aussi pour nga toog nga gërëm leen loolu daf ciy baax Mansour nit ku baax la xam naa ni waa Marodi moom poste bi ñu ko jox pour mu gérer ko. poste poste bi ñu ko jox pour bu gérer ko nañ ko fa gën a bàyyi parce que nit ku baax la euh, équipe bi ñu boole loon ñoo baax mais loo gis dafa am jàppal ma diw ndax moom moo ñu contacté woon mais nit ku baax la ko oyof la wax dëgg yàlla ñu defalee leen ko it ni ñu ko bëggee ndax bi ñu woowee man li ma njëkk a wax ak Mansour mooy li nga bëgg doo ko réccu parce que boo dikkee li nga soxla dinañ la ko jox may gërëm sama jeg bee nag toog muy say parce que say maa jëkkëram man ñoom Aziz Niane laa njëkk a àndal théâtre troupe Croix-Rouge moom mu dëkkoon sama koñ avant que Aziz Ndiane di takk mais bi mu xamee ne Aziz sama nit la à chaque fois daf ma doon seet si te boobu ba léegi amul benn changement boobu ba léegi amul benn changement te bu changé woon it nit ñi changé ndax nit ñi kenn moomu leen mais moom dafa baax benn bëgg jëkkëram jàppale jëkkëram su soutenir jëkkëram ba par ñi mu fekkoon ak jëkkëram mu bàyyi leen ak jëkkëram nit ku baax la nit nag su baaxee da nga xamal ni baax na pour fi mu teg tànkam mu bañ ko faa parce que nit ñi kenn moomu leen nit ñi kenn moomu leen ki muy sëyal suñu càmmiñ la Aziz ñaan suñu càmmiñ la ñu yàgg ànd du tey booba moom ñëwagul te xamagul ni dina sëy ak Aziz mais bi mu ñëwee dafa gën a téye loolu man fu ma gis sax moom moo may moo may njëkk a song ay tiktokam sax su ma koy xool dama ciy commentaire di ko wax ma maa a nopp parce que dama ci lu dul baax baax ko gën gis jeeg buy sëy ak jeeg yàggul de jeeg buy sëy da baax jàppale sa jëkkër soutenir sa jëkkër te say nit ko baax la ku bëgg Aziz ñaan te ku bëgg sa càmmiñ yow yow la bëgg nam nañu waaye ñoo ko raw wujj moom du ko gaaw a am damay toog Sénégal gépp di ko di ko dégg ay ko dof dof ba wujjeeg say sëy bi day tas bee boo kenn bañ a ñëw <laughs> du am wujju maa la ko ok lan ngay tàggatoo Bella xanaa di leen gërëm di leen di leen sant di ñaanal euh, doom bi aussi bébé sumbulu ñu tuddee ko sama rak sama xarit daaw ma jug këram jot moo bareetul Babacar Fall bi muy nekk ci wiir wiir daf ma daan wax digganteem ak moom c'est pas pour rien mu tuddee ko doomam parce que xale bu ñëwee di liggéey di liggéey ak yow nga di ko soutenir di ko jàppale bu toogee ay quelque ay quelque jour sax génnul nga nekk di wax pour mu génn xale xamul lu dul ki ko ki ko uuf. bien vrai que waa Soleil Levant yëpp a baaxoon ci moom mais man xam naa ne nit ku bëgg sumbulu la parce que tout le temps daf ma doon wax waxu sumbulu. tout le temps daf ma doon nit ku bëgg sumbulu la mu naturel nag ci moom euh, yëg boobu mu am xëy na ak nit dina la dina la dina la fekk ci ay situation yoo xam ne mu taxaw nekk sa mag. soit mu nekk sa yaay wala sa dara daf lay jaral nga bàyyi ñëpp tuddee ko doom parce que ki la tuddee doom bañu bañu la ki la tuddee doom bañu la ki am ay mbokk tëb mbokkam yëpp takk jabar ni sumbulu sumbulu may njëkke kooku wax dëgg yàlla xaw ma lu ko sumbulu lebaloon mais mi ngi koy dab dabal sumbulu aussi nekk nit ku baax ku yaru ku am personnalité ku nit dul dégg ci dara ku nit dul dégg ci dara man yàgg naa ko fréquenté yàgg naa dem këram wóor na mboose mi kenn du ko dégg ci dara deful dalay doon noo seen si deful dalay ñàkk fayda wax dëgg yàlla nekk xale bu yaru ku baax nag ku yaatu ku baax ku yaatu ku mën a ku mën a joxe alalam wax dëgg yàlla loolu loolu laa ko xamal daan nañu ànd bu ñëwee cee sama kër lay nekk man dama daan nekk këram ku guddeeg bëccëg subaa ngoon jot moo bareetul jot mee bareetul nit ñi am ay préoccupation mais nit ku baax la yéen ñu leen di gërëm ci liggéey bu mucc ayib bi parce que nit déjà jàpp na Babacar Fall sama doom la kii sama mag la moo ko gënal ay bëtam ku bëgg sa mbokk yow la bëgg ku jàpp sa mbokk yow la yow la yow la jàpp kii ñoo bokk ndey ñu bokk ndey mu nekk sama xaritu yaay sama yaay kii moo ko gënal ay doomam mboose moo ko gënal ay doomam mu nekk sama xaritu yaay moo ko gënal ay doomam kon donc ku bëgg sa mbokk yow la bëgg mu saf sàpp ci man nag wax dëgg yàlla mu saf sàpp ci man Babacar sama doom la kii sama mag laa mu saf sàpp ci man ma leen di gërëm di leen sant yéen waa Philippe Dakar yéen a liggéey liggéey bu mucc ayib entre ñun ak yéen parce que artiste bi dafa bëgg visibilité te ki koy wone te doo leen teg dara lu ñàkk fayda nag doo leen wone dara lu ñàkk fayda yàkkamtiwu leen tamit ñu diigal nit ba ngeen reprendre ko boo leen ko defoon yi dañ leen koy wax ndax ñun moomu leen ñu di gërëm Bamba sama xarit xanaa tey dina féex xanaa tey nag dina féex bàmba xanaa tey féex nga ndax man damaa sonn del